maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waalihi wa sahbihi sawi silaat ñàkkum ndox mu tar waaye it xuus bu metti la askan wi dëkkee ci yoonu daaru di dundu jamono jii wa kullu man abani aw maala illaa farsuxu dan wa kullu man sattamani aw fa ablahu tawbata wa istislaama wa kullu man asaasa nawbiya falyaqalli qalbahu yaa rabbiya mu doon nekkin wu doy waar waaye it wu safaanoo dëkk di xuus ci taataa taw yi waaye it ñàkk ndox mu sell mes mën a jëfandikoo tax ba askan wi yeewoo ci quartier bii di yoonu daru joxañ baaraamu tuuma kilifay nguur gi nga xam ne ñëwoon nañ fa bi ñuy jub màggal gi diggee fa ay diggee te yooyu yële diggee defuñu ci dara waajal binaa dëkk ci gox bi nag maa ngi ñu baree bare bari yàlla dogal nag situation bu bari lañu la dund ndax dund na ko ci lu mat juróom-ñaareet ndax 2012 la tàmbale woon kon xam naa bu juróom-ñaari at it day teg waaye du wàññiku waaw dëkkandoo yi fi nekk it wax dëgg yàlla yàlla dogal nañ ñoom it ci jafe-jafe jong lañ nekk loo bi daal ñëpp a ay at nag ñoo yàlla yàlla yun suñu tubaab dogal na maanaam ndox mi moom ñu ne ci jafe-jafe yooyu ministre bi nag bi mu fi ñëwee waxoon na ci xeet lu jëm ci loolu bi màggal gi bëgg a jub ne danoon danoon boole woon nañu préfet ak ak sous préfet ak ak ak commandant sapor pompier ak euh, ak commandant gendarmerie ak police joxoon na leen maanaam euh, neew ci li mu waxoon moom neewoon na maanaam dañu ci taxaw jàpp ci li mu war a jàpp waaye yàlla dogal na depuis màggal ba léegi gisuñu ca lam ñu waxoon dara وامن على بما من جاري wajalu rabbi min nanan muajjala donte kilifay nguur gi seen digge yi yëfuñu ci dara kuréel gii di Touba ca kanam ñoom gàcca ngalaama kulliya mujib antal mujib ca kanam ñoo ñoom seen Pastef ku ne xam na ko ci yoon wi ndax bi màggal gi jubee avant màggal weer ñoo commencé décaper mbedd yi di tali ak di ak di godoro ak ak di raaraan léegi ñoom pompe boobu bu yàlla wee ñoom ñoo nu ko jox ak équipement bi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey ñoom ñoo nu booleeg équipement bi koy monte ak lépp ba bu yàlla wee tey jii pompe bi moom moom am na yaakaar ci moo fi mën a jëlee ndox mi. kon ñoom yàlla ak sëriñ bi ak Serigne Touba xam Serigne Mountakha mi ñu liggéeyal yàlla na leen fayal bopp Touba ca kanam nag képp koo xamante ni yaa ngi koy dégg te gisoo ko maanaam da ngay ñëw ci dëkk bii di Touba nga gis li ñuy liggéey ñi yor liggéey bi ñoo ngi liggéey bu wér a ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ànd ak ñoom liggéey bi ñuy jaayante ngir Serigne ñoom it ñoo ngi xëy di teew am na ñoo xamante ni ba ñu tàmbalee liggéey bi ak léegi mës ñoo xëy saa bu ñu ci liggéey bi la ñu ne lu ñu leen ni jàpp leen ñu jàpp lu ñu leen ni wiide leen ci lu mel ni ndox wala yu mel noonu ñu di ko wiide dañ fi naan ne ba ay une heure matin ay deux di du matin di génne ndox yi ci biir kër gi ngir bëgg maanaam euh, màggal gi gan ñi am fuñ dal loolu tamit sant nañ ci baax a baax ndax suñu borom dimbali nañ ci bari na kër yoo xamante ni seeni borom jàppoon nañ ne duñ ci màggale te fa lañ màggale wala takun مبتليا منها هرا بما ليس يتيح يا سماد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاعة بجايس اليوم وجاع من ونيت في عبر ما مثله ولم نجيد bi ñun ñoo ko yor ñun six personnes lañ yoo xam ne ku ñuy wax Basir Touré moo ñu jiite waaye man maa yor pompe bi ñun ñooy pompe Euh, fu ñu bërki dem mën a jóge marché Ocass léegi bi ñu jógee marché Ocass euh, ñu ne ñu fii fii moo fii moo sësaat léegi nag fii nag ndox mi xaw naa bëri waaye machine bi am na doole léegi nag kon ñu ci yaakaar ndimbalu Serigne Touba rek. jëfi Touba ca kanam ji tax ba kii di Serigne Abdou Karim Ndaw mu Serigne Saliou di yëkkati ay kàddu soññee jëme ko ci taalibe yi ngir ñu gën a jàpp ci liggéeyu Touba ca kanam bii. li ñuy wax daal ci ndox mi moom mooy ñi nga xam ne yàlla yontu bi Serigne Touba boole nañu muy waa Touba ca kanam ban jàpp ci ba yëf yi nar a yemb nii yàlla am seen pa yàlla leen ko fayal te képp koo xam ne ab taalibe nga nekk ci Touba gii te te bëgg a liggéeyal yàlla na xaw ma nag nga ñàkk a bëgg a liggéey yàlla wala nga bañ a liggéeyal sëriñ bi bu sam xel nekkee wala sa yéene ne ci moom loo mën am ñaar téeméer yooyu am wala junni loo mën am def ko ci ndax boo ko defee liggéey dana dem ci liggéey bi sëriñ Touba bi yaasin moo wila yaa baru rahmatuka arja indana jafe-jafe yi nga xam ne mbënn mi moo ko waral askan wi dëkkee ci yoonu daaru ñi ngi koy dund gën gaa gàtt diirub juróom-ñaari at Touba ca kanam am yéenay tàqale leen ak yile jafe-jafe tax mu samp ab pompe boo xam ne dina manque ndox mi ci diggante bu toll ci un kilomètre jëme ko ci canal bi nga xam ne fala ndoxi taw yi Touba yi di dajaloo foofale ca kër ñang narju siwaaka kun lana tafaddula wala tuwaaxisna bi kasratil fudu. lu ca kanam fu mu nekk suba ba ngoon ñoo nga fa man sëñ Touba rek moo ma tax di xëy moo ma tax di gont bu ma sëñ Touba soxlaa ku ma soxla da ngay ñàkk xëyuma fenn gontuma fenn lu may mbirum sëñ Touba rek bu jeexee ma delluwaat sama liggéey waaye bu jeexut maa ngi fi. di sant sëñ Touba bu baax a baax mi nga xamante ni moom mooy borom dëkk bi di wax ni lépp loo xamante ni ndénkaane la woon wala lu ñu war a am rek moom la ko suñ borom jagleel. kon képp koo xamante ni yaa ngi koy liggéeyal jërul ngay tiit ci dara li muy wax ne xasaa inu rabbi futihat lii wa sasahat li xayril asa dunya wa uxra wa barsaq suñ borom dénk na ko lépp adduna ak alaxira tànneef la nag li kulli min jumlatin axiyaari martabatu laakina ma ahmadul muxtaar jërëjëf sëñ Tuubaa